salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikh Madiba Sylla njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara danoo am yéene ci jottali leen kàddu yu cant kàddu yu ngërëm kàddu yu ñaan yu bàyyeekoo ci maam Serigne Sylla mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Sylla ma di Madiba Sylla jëm ci mboolem njabootu Cheikh Madiba Sylla waye jiital jurang way juram serignam serign mahmadan dan sil khalifa Cheikh Madiba si di sant rakam jëwriñam serign mahmadan dan sil ibnu Cheikh Madiba si ci daru Daaru di sant serign maxtaar sil mom serign Madiba Touba Sam di beral ak tiant bàyyi serign Mbàkke mohammed sil ibnu Cheikh Madiba si mi nga xamne mo yore kàddu mboolem di beral ak tiant mbollem ñu bokkal Cheikh Madiba tambalé ci serigne Abdou Sylla mi nga xamné ne jëwriñu serigne Cheikh Sylla Madiba ak serigne Bassirou Sylla mi nga xamné ne mooy jëwriñu serigne Cheikh Sylla Madiba ak mbolém seeni rak di sant mbolém fédération bi lekkale njabotou Cheikh Madiba Sylla ci njitul serigne Bara Diop waye di jiital ci cant yi nak serigne Gari Ndoye jëwriñu kër Cheikh Madiba serigne Bara Diop président fédération bi sëriñ Mahmadan Ba président daire matériel di beral nak ak ciant njabotou Cheikh Mamadou Lamine Bara Sylla ñi nga mooy seen jëwriñ ñu doxale ko seen diggante seen moom lañu baara si maam sëriñ si di leen sant ngir seen pëstëf ak seen taxawaay ak seen ngor ak seen jom ak seen diine ak seenu taalibe ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Mamadou Lamine Bara Sylla te fas yéene àggale mébétam ya ak xemmeemteef ya ci liggéeyal seriñ Touba ci biir kër Cheikh Madiba jiital ci cant bi mbooleem rakkam yi góor ak jigéen mbooleem rakkam yi góor ak jigéen di sant mbooleem taalibe yi góor ak di sant jëwriñ ji jiite dayri bi di leen sant ci la jiitu ndax la jiitu weeru koor wa taxawaay ba rafet na lool ca ndogu ya ak addiya ya taxawaay bi rafet na lool ca tëbaski ga taxawaay bi rafet na lool ci màggalu isri na muharram gi ñuy defal xadim rasul ci Daaru Xuddoos taxawaay bi rafet na lool ci màggalu 18 safar taxawaay ba rafet na lool ci liggéeyu Daaru Salaam bokki barga taxawaay bi rafet na lool ci gàmmu gi nu weesu pëstëf bi ak taxawaay bi ak engagement bi gën a teel rafetaat bi ngeen taxawalaatee fédération bi ngir bëgg gën a mën a jekku ndigal ba tax ne maam Sëriñ mi ngi leen di sant ci la ñu weesu di leen gërëm ci lii ñu toll te di leen soññ nag ci li ñu mën ci ñu àndandoo doon ay gor àndandoo doon ay jullit àndandoo doon talibi Sëriñ Tuubaa te doon te doon royante nu ñëpp nag nu àndandoo topp ci mboorum Cheikh Madiba Sylla fas yéene àggaleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Sylla moom Cheikh Madiba Sylla mboolem naalam yi ak mébétam yi ak xëmmam tafir ci biir kër Serigne ma biir kër Cheikh Mouhamadou Moustapha Al waaye ci biir kër Cheikh Madiba Sylla maam Serigne mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mu ngi leen di ñaanal ngërëmul yàlla ak pajuk aajo mu ngi leen di ñaanal gudd fan bu ànd ak wér wërsëg bu bëri te barkeel may nu kàttan gu wér ak xol bu nangu ci liggéeyal Serigne Touba tam yombalal nu addiya te nu jekku ndigal te lépp lu ñu liggéey nu làq ca ngërëmul yàlla ak yonent bi ak sëñ bi maam sëriñ ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm te di leen ñaanal jàmm lii lu lu bàyyi ko ci lu bari bàyyi ko ci maam sëriñ si la jëwriñu sëriñ Bara Sylla taalibeem bu xeebu bii communication ci réalisation bi sëriñ Bara Sarr di ko gaaral te di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu